téléphone wàccoo ko sama nek nekk di ko saax ah? kay sama nek ko dugal diko sax kon de moy sama bàyyi sama ne sama prise bi baaxatul hmm. sama prise bi baxatul comme ko yak nga sa prise bu bu utiliser sama prise ah. yaa ngi legui nak dañuy waxtan ci diggante sœur ak xarit ah. ci diggante ñu ñu tolloo la ko ala Barcelone am barki dembu ma ngi gis nga euh, nga am ño andal wa ci buntu kër gi lañu yé yem te ñun tamit sonu nañu ah il est tamit il est temps il est ñu ne wax dëgg yàlla tubaat fakal la ndax dama koy gis nii ñu may ñu soxna. xamoon naa fa te benn jour laa ko gis benn jour ma ak yow ñu takkandoo. ngay lekk laax fii may a laax fii. naa waay jàmba ngay. fi mu nii man loolu rek laa yàkkamti. Ah. te loolu bis boo ko defee. Ah. foo jaar yoon la. xanaa da ngeen may neexal su ngeen pare. ah transport ah, bu ma ko defee pare. da ngeen may neexal. loolu amul la yoon la moos. dañoo sonn. dañoo a rey. man de man de fu mu nii. sama mat laa benn saa eh, la. man naka jëkk ba ma gisee sama copine yi génn fi ngeen ndar ma nii. laa xamante ne intérêt ngeen ma dara yéen a ngeen xaaral <laughs> te te man nag. ñoom la te te te man nag. Hmm. am na ku ma ku ma ku ma kii de. man moom caterpillar la. caterpillar maa ko. Eh, eh, eh. bu laal bu laal kooku du mel na moo tax tamit dox di def nii. caterpillar mana mau maa ko ko bakk bokkate man ni nga gisee dama moom ku may di rek la di sama xool dama moom naan naan naan naan ma ñàppal sa xool dem toogi ma ko luy damay toogi man ñooñu laay war yow engagé nga de man man ñooñu laay war gis nga kii Aliou dafa ndax awo de boo duggee ci moom dootoo ko def maa choisir xam nga yéen a wax rek boobu ba waaw gis ngeen ay bandi lañ ay wuyu lañ ay kooba lañ ay kabasa lañ buñ leen téye dañ leen di tarañ tarajtee di leen tëbb ba ngeen noy ñett sadik ngeen bu sadik loolu lañ bëgg kooba radio kay boo ko déggee eh, daajee eh, eh, eh, man ci ñool ma laajo man ca ngaama ah, waa baax na ci ñuul wuy ma essayé leen cee dugg sama xel dem ca maam yéen kay parce que yéen ci bi gis nga loolu mu ci bi du sadik ne gis man sadik man dama bëgg sadik agressif yow na nga xam ne nag. li li ma def lu na nga xam ne seddaay bi un mois moo ci des.

waaw teg maa bàyyi ma dugg ci biir kër gi defal ndànk ah Samba yow it nag heure bi heure Samba lii du pour fëgg sonnerie bi pour buntu kër gi waaw li ma ci xam ah waa jéem xam ne suñu kër daa amul sonnerie waaw waaw léegi Samba waaw sa baadool gi kan lay dañ ci yow laa xamul Samba defal ndànk rek man bu ma defaloon ndànk maa ngi lan la koy doxee ci naa gu tànk ñëw dégg nga waa nga méttee waaw léegi nag daa lu bees da yogoo mooy lan Samba kër gu bees doxalin wu bees méthode yu bess ah. lepp changé kër gi ba ci man mi da nga lacc ñun la fi la dëkk xam nga légui fi ñu dëkk waaw da nga am audience da nga ñaan audience wala ba déet ma ana mëna yow audience chamb léegi yee chamb léegi changement am na légui bu faté nak dama dama leena a xamal de chamb léegi changement am na chamb lo xam waxal ma ne man xam na la chamb bañ dalé and ba légui da ngay wër di fen rek <laughs> ah. fen rek ngay xam na loolu de mané xam nga ne kër gi waaw kër gi ngeen dëkk ni waaw xam nga lii kër mbaraan la yéen ko am mbaraan ba naa lépp dañoo fier ci mbaraan ñun ñun ñoo la famille de mbaraan dañ cee fier te fii laa ko bëggoon nga nga lànk bañ ne dama ko may yéen ngi di mbaraan dañ ñoo mënal li mënuloo ñu ko mënuloo ñu ko dayow waaw léegi nag dafa am lu lu am ba des mooy booy ñëwati da ñaan audience pour mën a ñëw dugg ci kër gi de du lu may mën de ah du lu may mën de ñaan audience moom mënu ma canapé yi de doo xam nu lu ma lu ma mel ak yow. waaw te kër damaa sax dugg xool nu mel. ci biir waaw ah, euh. naa taarikàlla moom lépp. taar la gàll rek <laughs> may may ma tudd ma lu ma jël. doo xaaral xaaral daam lu may jël. waaw jë nee ma jë waaw may ma tuuti Samba waaw tamit taxawal may ma tuuti may ma tuuti. may suba ak nga nuyu ma say mbokk. waaw mais kii baal la naka njëkk mais naa la kër gi mbalaan ngeen ko sa sa rakk ji mbaraan rek lay waaw yow suq bu bon mi yow seen mbaraan ji lan la waay waay ci man man sama maa ko def man da gi sax doon fi ñëwati waaye lii man dama amoo ful la tamit sama rak ji tay mom mala wara delo ndukal deggal lol waaw waaw dama nan ñoo la war a delloo sax. Hmm. waaw waaw. euh ah, lajon na la fi ñaar fukk de. waaw. waaw. ay dama soxla ñaar fukk de do mo jox rek dama wara am luma ma doxe luma wara war ya nga wara laj ñaar fukk yow ak li mo tek ci li lepp boo fàttalikoo jour ba nga may laaj ñaar fukk ma bañ. Uh-huh. boobu lii laa doon opté parce que damaa bëggoon ñu changé diwaan. nga xam nga fañ nekkoon ndeysaan nit da ngay ñaan yàlla évolué nga évolué moo tax ma jël appartement bi mbaraan gi nag yàlla daa ne dafa neex ma sama gars yu baax ñu am seen yërmande yéene ma seen alal nit nag changement bi am da ngay changé di ànd ak moom moo tax ma jël appartement bi. man kay fi mu toll nii sama xol bi sa fa sedd guy ne wan a gu mbott. Hmm. ndax xam nga kontaan gi ma kontaan weesuut nii ma mel tey mën naa ni yaa ñu ko def kontaan nañ ci yow làq nga sunu ngërëm te gërëm naa la it ndax ku la jëlee fële indi la fii xam nga ne tubaab du moromu naar su koy bay ci xonqaay ba la dëgg la xam naa ne daal maa ngi doo ko xam njariñu mbaraan <laughs> léegi nag li ci manqué moom lenn rek la ginnaaw yàlla dëgal na am nañ koy appartement. Ah. fexel nak dam lii dama la koy ñaax ndax mbaran gi neex na neex go xamanteni mom mom fim fi ni bo gennul boo bëggante may genn bëggante ji. yow mi wa rek. <laughs> wutal ma koy daw ku kuy ñaw déglul rek nga wut koy fast food nga xamanteni suñu xiifee dem reeri jëfa ci mois eh waaye Ndo Samba. nga do des na. nga wut taxi man bo xamanteni ginaaw ñu dañuy déplacer ko di dem bi ñëw nga wutul ñu bo xamanteni mbaranal taxi man naga xol nak taxi bu luxe nga maran borom. nga xam ne foo na koo kar sama ni yaay sama yi mag ni dañuy iya dem rek bu ñëwee ñu dem. <laughs> yaa ngi euh benen bi ci topat ma xol euh taxi man ter pour ñaw euh fast food ak ban ah jaaykatu connexion. bu ko fàtte. yow nii lañ lay baye wax na ci wutal rek. <laughs> yow dal mass si yow mën nga ne yow doo. loo maraan doy. Euh, connexion bi bu ko fàtte wutal wutal jaaykatu connexion rek. waaw léegi man damay ñëw wut bi fii xam nga ne doo appartement bi. dama wuyu ma defal ndànk nag goroloo hmm. bi de. dalagoo ci politicien. boo xam ne hmm. day tibb alal réew mi li ñu jox rek. wut ku moo mi moo defal ndànk wutal mbaraanu politicien teg parce que lu ñu man ana xaaral may ma. Euh, Aliou yow ma ni yow neel Aliou bu mu taal dëkk bi na ba film bi te ñëw. <laughs> ah waay Aliou. ñëw waay. Aliou ju Aliou mi juuxul suñu famille. lan moo mën a xari. samay copains dinañ ñëw gis comportement Aliou ci kër gi fii sama xol bi dagg. garam bu bi moom garam bu moom du dugg ci kër gi. dañ may yeb ma loolu tuuti garam bu bee tax ma wootee réunion di garam bu Aliou bi jar naa wootee réunion. Aliou ah, yëpp mu jar naa xamante ni. bi 30 ah. ans ci ren may ma may ma Aliou may may ma dañuy wa wa wa wa wa deglu rek wa d'accord d'accord Aliou du gis nga tubaar fa kala ni sunu rak ji def ah, man day xamal nek tuxu si xam kala gëna nek aha hmm hmm kon yow nek télé yi sol ni am wa wa amna hmm? ah mooy eh, sunu rak ji de gëni fi man xam nga yéen laaj so mooy yi nga xam ne ci ginnaaw day am tub. mooy sunu ji fu ne la génn. mooy yooyu noonu ay ay kiiwaay. Eh, eh, mbaraan mee dox. waaw léegi nag Aliou nga baal ma. Mhm. léegi nag benn affaire dafa am. ginnaaw yàlla dogal na kër gu bees. Mhm. doxalin bu bees. ak jikko ju bees. ak jikko ju bees. a ah, moom dèjà gis nga man li ma def nii xam nga ni soppeeku naa. ah soppeeku naa nag Aliou yow coow li coow li li ko waral xam nga lan la du weesu ay bàyyi dee na. sa garam bu bii nga dimbaliñ ci Aliou ndax xaw ah. xamul. Serigne dala koo digal nga koy testé Aliou 30 ans ci ren benn gramme boobu bi rek ngay ñam. tey nag moo wax léegi histoire euh, histoire gramme boobu. non Aliou. non ah, non a bi boo duggee ci biir nit da nga koy fekk chaque gramme ni même couleur même taminé même zeste. même saa yi boo duggee damay changé benn soxla te loolu comprendre. bi xoolal léegi léegi. ma. Ah. xam nga lan laay samay copains di ñëw ci kër gi di la fekk sa grand mbubb bi dama bëgg nga changer méthode ah. sa comportement aussi nga changer ko drapeau Sénégal da taamu sa changer mais Aliou lay ah, la waaw léegi dafa ndànk drapeau Sénégal ay du fii ay nga gis bu mag des fois nga gis bu ndaw hmm. xam nga lan la Aliou hmm. grand mbubb bi moom ngay teg ko ca xaj fële ca buntu kër ga mu fay mu wekk ko fa ginnaaw patrimoine la booy wekk ko ci buntu mu ñu koy gareel te garambu bi day garambu bi su ma ko nar a mel na may sama der bi di gis yàpp kese bu ci débat bu gan amatee du dugg ci kër gi jarul débat bu gan amatee nga toog sa biir néeg déedéet bu gan amatee nga toog sa biir néeg man doo lo. Dulu waaw léegi nag du loolu may ñu tuuti rek man damaa jëkk ci appart moo tax ma bëgg Ah, voilà la bëgg a jox mu changé la sa comportement bi nga yor ni mu dañ man li daf may déranger awa mooy pamb am yaram da jekk rek moom la moom la ak nga dégg kon yow xol nga ko dé ak nga ko attan nga ko Aliou attan nga ko gis nga ni may gisee nii maam njombaat bu ko boole woon mhm. boole kii euh, waa euh, tal fada boole boole kii euh, trois yoon. ñoom ñëpp bu man damay ñu soo ma rek. jërëjëf. Ah. yaa ngi ci yoon. waaw garab bu ngeen baax. de. jox na moom. fan yii moom. jox na de dëgg yàlla xanaa bi lay takk nag parce que tey di ko wàccee. dama koy ah, ah. wàccee di ko di ko diiri rek. wàccee ma sànq fan woon. yoon la yoon foo jaar di yoon imbécile foo jaar ba jàmbur yow foo jaar musiba la <laughs>